ay ci asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nuyooti naa leen euh, kenn ku ci nekk fekk naa ko fi mu toog ne ko jabu loxo naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, comme daan baaxee defee saa su nekk nee naa leen jamono ji ku nekk xam na ne Lalla Aïssa ak Beydi euh, ñooy bomb ñun waa Leuz TV dañuy bomb fi ba mu neex tey nag ñoo ngi fan ñoo ngi fii ci Grand Théâtre tabarakallah macha allah nee naa leen daanaan woote Alsane Mbaye ku ko xamuli dégg nga ko ci xeetu baax baaxam ci xeetu goyam gis ngeen tabarakallah nee naa la Beydi gis nga nit ñi toog ah nee naa leen ay 16 ci bés nit na ko luye nit mën na luye baas waaye nit ñi kenn mënu leen loué tabarkàlla jëfam rek la ko nit ñi fay fekk see ko ko gis ngeen saal bee ngi fees dell duggaguma ci biir waaye nit ñee ngi toog fii la macha allah kenn amul foo jaar ay ca gannaaw loolu nag béy di ah du ma def ko lu mooy comme ni ma ko daan baaxee defee nee naa leen ah, salon ramasi ramasi tey moo fi jaar borom ri 9 angle 12 foo laajte ramasi rek ñu indi la ay ca Modou fay moo ma solal béy di jëla sama sañse acca nee naa leen Modou Faye moo fi jaar ak maam Awa Seck ah madame Jonn madame Jonn moo fi jaar ci dàll yi ah sañse bi Modou moo fi jaar ah ñu daal di ma sañsel ba mu baax ma daal di ànd ak sama bi bu ñaawul ah béy di mi nga xamante ne nee naa leen caméraman yëpp moom la ñuy wër acca duñ def nag lu mooy daal di jàll ci biir xool bés bi tey lan la laaj xool ndaanaan yi ndaanaanu ndaanaan yi tey nee naa leen fii dana mel ni tool barke yonent bi ayca du yomb bay di topp ma ñu dem ayca gis ngeen comme ni ma leen ko waxee saa su nekk ah leen bés du tuut borom lay tollool ah, moo tax nag tey nee leen géwél ya aye moo tax du neex war sa moome ko aye war sa moome waaye yaay li nga sañ lan la bañ nga mere chéri ko ko ah yaay sa sañ sa rëy na lépp nag Assane Mbaye ko waral lan ngay wax ci bés bi tey xanaa kontaan tubarkalla allah ginnaaw yéen sant yàlla jul bi Seydina Mouhamed Assane la na wuy si rek day suñu doom di suñu rak di suñu lépp barke sëñ Fall loolu waral loolu nu ñëw tey tey fii du yomb de. tey li mu wax tey Marème Faye Sall ak li mu yàq tey Macky Sall ba dégg nga ko. waaw dégg nga loolu ëpp naa. layoo bi jeeg bu doom ya màggee ak tayeen sa yaay layoo naa jeeg ji bay leen layoo bi jeeg waaw bu doom ya màggee ak tayeen Sambay sa yaay layoo naag géej gi bay leen waa turu Mame Ndiaré bu Yoff ñëw rek pour jàppale Alassane Mbaye barki Serigne Saliou lii rek la du leneen ah ñu li ban turub la turu bu Mame Ndiaré bu Yoff waaw sunu bis la la muy doom ju baax am yar am teggin jox nu cër ñun tam ñu delloo ko njukkal jox ko cër loolu moo tax ñu ñëw Alassane Mbaye mënuñu koo fay dana nu yóbbu màkka dina nu teral dina defanteeg ñun lu baax dina kaf ñun dina reew ak ñun barke sëñ Fallou. ah kontaan rek di ñaana Alassane Mbaye yàlla na ko teewe at yu bari xale bu baax bu am yar bu am teggin ku am sutura nit ku gore xam nga ni ñun mag ñi ku ñu yëkkati am nga ci ñun cër suñu mayul woon cër kenn du déplacé waaye yërëm am am na ci ñun yëg am na ci ñun teggin di ñu teral ci alalam booleeg lu mu am bokkoog ñun. ñu ngi koy ñaanal anniversaire bi yàlla na ko def ati ati at. sama bésu rakk bi rek yàlla na sedd guy na ndoxum galaas Alsaan Mbaye ñëpp koy yéene maa ngi nuyu nag sama gaañ te France ñëpp nag maa ngi nuyu ajot Ndooxo Abdou Pen di nuyu ajot Asi Gueye maa ngi nuyu Soxna Ndooy maa ngi nuyu képp ku ne France maa mbi ta Ñas maa ngi nuyu soo Soxna Gueye sama rakk di nuyu ajotu Asietu Gueye di nuyu waa Celles la Forêt ak waa Cergy Pontoise bésu Alsaan Mbaye bi xamoon nga ne Alsaan Mbaye bu wootee dina déborder ndax moo bindoo noonu alsaan baax na bëgg nay bokkam bëgg nay xaritam nit ku baax la yàlla na yeggaleeg jàmm yàlla na commencé bisimilahi rahmaani rahim eggalee alhamdulilahi rabil alamin waa bis bi kontaan rek ndax alsaan ku baax la ku yaru la tey def nu ay yaay du nu woowee sax tante yaay rek lañuy wax wax dëgg yàlla ak yonent bi ku ne mu jox la carte nag pour bëgg nga ñëw loolu moo ñu indi kontaan ci rek naka nga gisee ay woyam waaw xam nga woy moom danga koy man tubarkalla boo dee woy nit ki danga koy woy ba mu xam ne yaa koy woy nit koy woy doo commencé rek woy ko noonu jukkoom nga dem te moom day fa woy ci jukkoo woy ci maam te loolu la ñu doyee woy am contentement lool ndax yàlla dafa dogal alsan danoo bokk ak moom ak bokk mën naa ni askan wi vraiment mi ngi ci def lu baax ndax këram lañu yendu depuis 10 heures ba léegi ñu nekk fa mais kenn xaju fa waxuma dara waaye ni mu def bokk yi rek man moom a njëkk neex ndax invité leen woo teral leen man looloo ma neex man a yàlla dafa dogal dama ànd ak sama mag Cheikh Fall mbay di communica eh, di takkatu yonte bi Jaaja Mbaye communicateur nekk ni man Cheikh Fall Mbaye di Cheikh Pété Mbaye di communicateur kontaan ci yéen ñii ak seen maa ngi leen di ñaanal yàlla nañu yàlla defal jàmm bégum ci ñëpp si suñu suñu mag suñu xarit Alsane mbay nga xamante ni nekk koo xamante si na extraordinaire la man nee naa ko li ma gën a neex ci yow mooy géwal buy partagé te moom loolu la ko yàlla si ku gis Alassane Mbaye xam ne géwal pire la géwal gi nag léegi lu ne daaraam dugg ci moo tax xàmmeetoo géwal ak kurul géwal waaye Alassane Mbaye boo ko gisee xam ne géwal pire la ndaxte géwal piir day partagé loo am da nga koy bokk yéene sama roomu géwal jàmm te Alassane Mbaye looloo ko dal kon ñu ngi koy ñaanal bisam bi yàlla na sedd guy yàlla na ko def ay ati ati vraiment kontaan nag kibis bi ñun ñëpp tey nag ma ñëw indi toir fa kala sama teranga doomu nday magi Chanel magi magi mu Birima Mangare ministre du budget magi toir fa kala moo ajara tax ma daat nga xamante ni El Hadj El Sidi Hadj moo ni woon bu la sama baa se si bi làq bi dal dootu mat nit dootu yàb bay waaye Cheikh Omar Fouti maam moo ñëw fekk maam moo ñëw fekk maam war na sali njaareem ni ko topp naa leerug sëñ Bamba ba ba gis ko ci yow kooku mooy ajara magi Chanel mu Birima Mangara ministre du budget bu baax bu Gorée bi yaru bi moom laaj tey ñëw indil teranga fekk fi nag Cumba Sakho mu baax mi nga xamante ne tubaab la Séga Sakho baayam loolu def na ko ci équipe nationale bu Sénégal. ak Leuz mais mais Leuz nag moom tubaab la macha allah maa ngi moom dañoo bokk góor gi si Dieng sama géer gu baax nga xamante ni basketteur mag bi nga xamante ni mu nekk NBA yi ñëw fii duñu duñu sagal mu nekk nit ku baax. Leuz nekk koo xam ne si taal la man sama xarit la sama doomu ndey la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di la nuyu yow tamit liggéey bi rafet na.